xam ngeen ne noo ngi nekkoon ci firi saar wu tedd woowu ci di suuratul fatiha xam ngeen ne noo ngi mujjoon firi baatu ihdina ihdina ji waxoon tënkoon nanu ni am na ay maani yoo xam ne booy boo koy jàng yépp mi ngi kon jaadu na nga xam ko ihdina yal nag nu gindi yow yàlla subhanahu wa taala gindinu ba nu xam yoon wa nga bëgg ko ci jaar yàlla nag nu won yoon wa nu ngoog loolu ba maanaam mu njëkk mi ihdina boo nu wonee yoon wi ba nu xam ko yàlla nag nu may tawfiq ba nu dox ci kaw yoon wi nga bëgg ko ci dox ndax nit kii mën naa xam yoon wi te du ci dox bari nag ku xam ne lii moo dëgg te du te mu bàyyi ko fa di def leneen wala muy wax leneen ihdina yal nag nu tawfiqal gannaaw boo nu wonee yoon wi yal nag nu tawfiqal ba nu dox ca maanaam ñetteel bi mooy ihdina boo nu mayee tawfiq ba nu nekk di dox ci yoon wi it yal nag nu may tawfiq ba nu sax ci dox bi ndaxte am na ñoo xam ne li ngi dox ci yoon wi naan waaye dox bi dafa maasiwul buñ doxee tuuti taxaw buñ doxee tuuti dëpp buñ doxee tuuti geesu loolu ak dox la boo xam ne dox gu saxut la ihdina sabbitna ala sirat al mustaqim yàlla nag nu may nu sax ci yoon wi loolu mooy maanaa ñetteel bi Seydina Imaam Ibnul Qayyim dolli ci beneen maanaa ci tafsiram bi mu mooy ginnaaw nga xam na yoon woowu moom la ñuy soppi aw yoon mu tudd ko siraat soppi ko pon cag ko ca kaw naari jahannam yawmal qiyaama kon maanaam ñeenteel mooy ihdina bu àllaaxira yàlla na nga nu teg ca kaw yoon wa te ma ne nu tawfiq nu jaar ca jaar bu gaaw ba ñu am ay lonkaan yu lonk suñuy tànk bi ñu daanal ci ginnaaw jahannam yooyu yëpp dinaa da koy fii ñu war a ñëw nag tey baat bi ci topp insha allah te mooy as-siraat al-mustaqim yow yàlla yàlla na nga nu gindi yàlla na nu may tawfiq nu jaar yàlla na nu saxal ci kaw yoon wa assiraat almustaqim mooy yoon wu jub wa luy maanaa yoon wu jub wa xam ngeen ne buñ ne aw yoon buñ xasee tudd aw yoon daanaka xel dina dem ci ñaar yëf kuy dox ci yoon wi ak fa yoon wa jëm mu ngoog kii dox ci yoon wi ak fa yoon wa jëm maanaam ab yoon moo di ab dëkk yoon woo gis dafa am dëkk bu mu jëm wala tool bu mu jëm dafa am daal barab bu mu jëm kon boo am na aw yoon ak ki ciy dox ak barab ba mu jëm yoon wu nag moom mooy lan loolu la war a jàng tey insha allahu taala yal na yàlla tawfiqa ci ko te yàlla tawfiqal ñu ci ngeen dégg ko te yàlla tawfiqal ñu ci ñu jëfe ko te mu nangu ñu te jéggal ñu as-siraatal mustaqim doomu aadama waxtu wane mi ngi yëngutu mi ngi yëngutu ci yëngutu goo xam ne mën nañu koo tuddee ab dox mi ngi yëngutu ci ay soxlaam mu ngi yëngutu pour am lu mu lekk mu ngi yëngutu pour am lu mu naan ak lu mu sol ak fu mu dëkk loolu yëngutu yooyu dafa ko ab dox la bu muy dox ngir àgg ci ab escale escale gi mooy am lu mu lekk waaye mbaa lu mu naan mbaa lu mu sol waaye escale boobu itam day jàll day dox jàll te mooy bu ko amee day lekk bu amee lu mu naan day naan bu amee bu mu sol day sol yëngutu ya ngay yëngutu pour am loo lekk il faut nga jaar na ko ci aw yoon yoon woowee mën naa jub mën naa dëng il faut yoon wa ngay yëngatu jaar pour lekk yoon wa ngay jaar pour lekk wala yoon wa ngay jaar pour naan il faut am na noo koy defee na nga koy defee rek mooy yoon mën naa jub mën naa dëng da ngay lekk wala ngay naan tam dafa am loo ci jublu woon ak loo ci bëgg te mooy dindi ab xiif wala dindi aw mar kon yooyu yëpp ay soxla la yoo xam ne ay soxla marxaliya la yoo xam ne benn bu ci ne da dox wuti ko pour jàll wuti ba ca topp mu waaye li ma wax ni itam ay misaal la rek yëngutu pour lekk pour am loo lekk pour am loo naan pour am mu ngoog loo sol am foo foo dëkk wala wata go go boo xam ne boo bëggee dem fi barab man caa war yëngutu yi ngay yëngutu pour faj soxla yooyu il faut yaa ngi koy jaarale ci ay yoon mu ngoog yoon yooyu li ma ci wax ni ay yëngutu ay misaal rek la waaye bari na lool te nit ki mën naa nekk di yëngutu ngir lu jëm ci moom kese en tant que kenn waaye itam mën naa nekk di yëngatu ngir jëm ci lu taxawal njaboot ni kii day yëngatu pour am soxna wala am na soxna ba noppi waaye day yëngatu pour am ay doom wala am na ay doom ba noppi waaye day yëngatu pour jàngal leen ak yar leen moo xam da leen di jàngal njàng mi yàlla bëgg muy njàngam alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te seeba mu jàngaale ñu defar addunaam am day won gannaaw adduna day won gannaaw loolu yàlla bëgg jàngale leen adduna yi kese waaye li ñu ci mën di doon rek il faut nga jéem a jàngal sa xale yooyu doonte mbay nga leen di jàngale wala ak maçon loolu lépp ay yëngatu la yooyu yëngatu il faut nga jaarale ko ci ay yoon loolu lépp ay yoon la yoon yooyu yoon wu ci nekk faaw mu jub faaw mën naa jub wala mu dëng kon look yëngatu yi nga yëngatu ci biir famille wala ci biiru dëkk dëkkandoo bi Fass Touré ab dëkk la ñu ngi fiy dëkkee ñu ngi fiy nekkee ñu ngi ngoog ñu ngi dund ci suñu biir ñu ngi fexe fexe ba teen bi di am euh, xaalis bu ñuy fay euh, fay courant bi ndax ndox mi mën a ñëw ñu ngi def ba bi ay garab di fi ne ñu ngi def ba am aw jiw ñu ngi def ba suuf si ñu bañ cee xuloo aw dëkk yi ci wàllu dëkk ci wàllu am. ak am réew tam nu ñuy def ci biir réew mi nu ñuy doxale biir réew mi mu ngoog doxale biir réew mi loolu il lu ci nekk am na ay yoon ndax dañ koy doxal ci yoonu Karl Marx dañ koy doxal ci yoonu ci yoonu socialiste yi ci yoonu communiste yi wala ci yoonu moo ngoog capitaliste yi mu ngoog loolu lépp ay yoon la yoon yooyu yoon wu ci nekk faaw mu nekk yoon wu jub wala yoon wu dëng te li ma waxagoon lépp bu ngeen ko seetloo ay soxla la yoo xam ne day dellu ci jëmmi nit ki en tànk que fard individu wala jëmmam en tant usra famille wala jëmmam en tant que ku nekk ci dëkk moom ñeneen ñu war a seet ba xam ñu fay dëkk ci jàmm walla nit ki en tant ku dëkk ci réew ñu war a tànn njiital réew ma moo xam ndax day kay jiite parti sàngam mbaa parti sàngam war a tànn député mu ngoog loolu lépp lu ci nekk ay yoon la yoo xam ne da nga jaar mu yoon yooyu yoon wu ci nekk faw dina jub walla mu dëng boo dee wut alal wut alal am na aw wut ay wutini alal faw dana jub wala mu dëng am na consommé ko maanaam bi nga amee alal ba noppi noo koy def da koy denc am da koy lekk noo koy lekke yàq kana koy bokk ci yan nga koy lekke nga koy nga koy euh, euh, frais nan ngay jaare ba am alal ay yoon la nan ngay jaare ba lekk ko ay yoon la nan ngay jaare ba wuute yi am sa digganteeg sa yeneen mbokki nit kii nit gis ni yoon wi gën a baax day moom mooy yoonu tijaan kii ne déedéet yoonu murit moo gën a baax kii nit gis ne yoon wi gën a baax pour doxal Sénégal day mooy yoonu mooy yoonu euh, PDS kii ne ko déedéet yoonu APR kenn déedéet yoonu PS loolu lépp lenn lu ci nekk nga xam ne aw doxalin la woo xam ne dañ ko seq ci biir réew mi loolu li fi ay am waaye boo seetloo am solo yooyu yëpp muy ay soxla yoo xam ne dafa dellu ci nit ki ci nekkam en tant que wala en tant que famille wala en tant que kenn ku nekk ci biir société hatta bi ñaar xuloo dem ci tribunal ba bi ñaar xuloo dem ci tribunal ba juge ya sol seeni robb toog di atte atte ñi atte mu ngoog loolu lépp lu ci nekk ay yoon la yu di jaar yoon yooyu yëpp nag faw yoon wu ci nekk dana nekk yoon wu jub wala yoon wu dëng waaye yooyu yëpp boo ko seetloo gis ni soxla yoola yoo xam ne dafa dellu ci jëmmi doomu aadama ci boppam waaye kon am na ab xaqiqa bu mag xaqiqa bu mag bi réalité bi gën a mag ci réalité moo di moontin doomu aadama day sàkkut boppam des ko sàkk am na ku ko sàkk xanaa yàlla mu màgg mi yàlla mu màgg mi de bi sàkku ko woon abasan sàkku ko woon pour fo wala pour ko bu noppi bàyyi ko déedéet bi mu koy sàkk dafa am lu taxoon mu sàkk ko dafa am lu taxoon mu sàkk ko du ma wax ne dafa am lu mu koy doyee ndaxte yàlla soxlawul dara yàlla doyewul dara dara waaye soob na ko nag mu sàkk nit ngir ne dama koy sàkk ngir bëgg mu def nangam waaw mu nga bu ko defee soxla yooyu soxla yooyu ma wax yépp am na ci yoo xam ne soxla la yuy dellu ci jëmmi nit ci caw yaramam am ci soxla yoo xam ne day jëm dellu ci am xelam am ci soxla yoo xam ne day dellu ci ci ci nafs bi ci soxla yoo xam ne day dellu ci ruu gi te ak ruu ak ruu ak leer la gu yàlla def ci doomu aadama goo xam ne moo koy tax a nekk nit saa boo xamee ne bi leer googu génn na loolu moom la wax dee na dee mooy maanaam leer googu yàlla defoon ci doomu aadama bi ba mu nekk nit leer ga daa génn ay malaakaa koy génn yóbbu ko su boobaa la fa des médd la moo xam ne kenn sa nekk moom ci barab lu yàgg gën jaa rafet yi la nga ca mën a def mooy gas suul waaye li ko taxoon a doon nit moom mooy ruu gi te loolu ak leer la te dem na waaye yooyu yëpp boo seetloo soxla yi ngay def soxla yi ngay am pour mën a garder yooyu ñu nekk nekkin wu ñu war a nekk nga nekk ci jàmm nekk ci sécurité nekk ci xel mu dal nekk ci saada ak dund gu teey yooyu yëpp boo ko seetloo day dellu ci jëmmi nit ki waaye am na lu des mooy nee nanu yàlla moo nu sàkk te ba mu nuy sàkk dafa amoon lu tax mu sàkk loola mooy nanu ko jaamu kon nag yow bi ngay yëngutu say yëngutu te yëngutu yi nga yëngutu yépp pour lu dellu si ci bopp la waaye nag kala sàkkoon moom la taxoon mu sàkk la waxaguñu dara ci yëngutu yi nga war a yëngutu ca la mu la sàkke te may nga jaamu ko te foofa it aw yoon la foofa it aw yoon la te nit ki nga xam ne yàlla da koo sàkk ngir lu koy sant te mooy na ko jaamu nit kooku bu defut li taxoon yàlla di ko sàkk li ma ko mën a misaale mooy ab montar ab montar xam nga ne des koo defar waaye ki ko defar dafa amoon lu tax mu di ko defar defaru ko woon rek pour fo pour sànni dafa amoon lu tax mu di ko defar mbokki jullit yi ndax yéen a ngi teewlu ki doon defar montar lu mu jublu ci defar montar ak lu ñu koy doyee aha loola mooy ñu mën cee xam waxtu montar li koy doye mooy muy xamle waxtu saa boo ko xoolee xam ne une jot wala deux jot wala trois heures loolu ñuy doyee ab montar su fekkee ab montar duutu ko amalati ab montar duutu ko amalati montin ab montar tam am na ay soxla yoo xam ne ci jëmmam la jëm ndax montar bi faawu soxla na aslëf ci courant lu tuuti batterie boobu ci ne courant moo ci nekk buy tax aiguille yi mën a dox wala marque yi mën a dox ànd ak heure bi lu bëccëg bi dox rek heure yi dox lu ni toll te ci lu bokkut ak loolu montar bi ginnaaw ak weñ la am na benn degré température aw aw tàngoor woo xam ne moom la soxla pour mën a continuer nekk montar masalan mon jaww ji bu fekkee ne bii dafa tàngaay wi dafa àgg ci ñeent fukki daraja wala fanweer ak nangam dañ naan dafa tàng lu ngeen xam ci bu fekkoon ne jaww ji dafa dem ba tàngaay bi àgg ci junni waaw junni ay degré su boobaa weñ gi ci boppam moo xam montar la moo xam ak wata day ruy day bax du fi nekkati kon boog montar bi am na yu mu soxla yu dellu si ci boppam pour mu mën a doonu montar mooy ab tàngaay boo xam bii du ëpp du manqué ak aslëf ci courant luy tax mu mën a dox di wane heure yooyu ay soxla la yu jëm ci boppam soxla yooyu même bu ko amee waaye li nu ko doon doye nun ba tax nu defar ko mbaa nu jënd ko montar bi amalatu ko te mooy du ñu xamal heure montar bi lu mu rafet rafet rafet lu mu cher cher ginnaaw li nga ko doon doyee mooy di xam heure te bu heure jotee boo ko xoolee doo ci xamee heure moom wakki jullit yi boobu montar lu muy njëriñ ndax am na njëriñ xam ngeen ni amul njëriñ ginnaaw amul njëriñ kon fuy place am laaj montar boo xam ne liñ ko doon doye dox defatu ko amee nañ su caa xamee heure naa ngi ci dix heures onze heures boo ko xoolee lu yàgg yàgg doo ko ca xamee booba montar sirt ñu yóbbu ko ci réparateur montar yi ñu jéem jéem mënuñu si dara booba montar xam ngeen fuy place xanaa sën ba sànni poubelle ya mooy place am montar boobu daa amul jëriñ mën naa koo misaale nag nit koo xam ne moom ay soxla yi nga xam ne moo jëm ci jëmmam ni ki lekk ni ki naan ni ki solu ni ki euh, euh, euh, lu muy jëfandikoo pour mën a tukki diggante dëkk ak dëkk ak fu mu dëkk ak soxna ak i doom ak nu mu dund ci biirum réew loolu mu soxla moom ci jëmmam lépp moom mu ngi di dox pour mu am waaye da cay da cay doxe ni am xelam gise waaye nag li gën a metti loolu lépp moo di li taxoon yàlla sàkk ko moom xamu ko bugg koo xam jéemu saa jaar nit kooku lu muy jëriñ ginnaaw def ko sàkkoon ngir mu jaamu yàlla te moom jaamuwul yàlla buggut a xam yoon wi ñuy jaar ba jaamu yàlla jéemu koo xam nekku ca mook montar bi nga xam ne du xam ne waxtu ñoo yem amuñu njariñ nit kooku lu mu am am daraja lu mu am am yaram yàlla mbirum mbirum mbirum làmb nit kooku lu mu bari bari xam-xam dem daa am xam-xam nit kooku lu mu am am am xel nit kooku lu mu bari bari ay jabar ki doom lu mu am am barke waaye yàlla ko sakkoon ngir mu jaamu ko te li taxoon mu sàkk ko moom defu ko mook montar bu ñu def defaroon ngir muy xamle heure te du xamle heure ñoo yem ñoo bokk place ñoo bokk melo amuñu njariñ seen place ñoom ñaar ñëpp mooy sën ba am na ci nit ñi ñoo xam ne seen place dëgg-dëgg mooy sën ba donte lay ci ay kër yu rafet lañu ñu dëkk waaye ab sën ngi ci kanam buy tàkk di bërëx bërëxi te nit ñooy ñëpp fa leen jëm yàlla nañ ci yàlla musal mbokki jullit yi noonu lanu mën a misaale yoonu siraatal mustaqim yoon yi ngay jaar pour faj bopp yoon wucci ne mën naa dëng mën naa jub lu bokkut ak bopp yàlla mi la sàkkoon dafa am lu mu lay doye te mooy nga jaamu ko jaamu ko mu wutal ko aw yoon يون ومليدل كو بوبام تي واخ جيمم جي تاد جي موي القران اك تي لان مي يونتام بو تاد با موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كو بغا خم نوماي جامو دمال تي القران دمال تي واخ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اك جيفم يونا يون يغي جارله سك جامو جارله وكو فوفو ولا سخ جيمو كو جامو yoon yi ngay jaarale sa soxlay bopp yi yi ñuy tax nga mën a nekk ci àdduna nekk lu ànd ak jàmm jaarewoo ko ci yoon wu jub wi yàlla rëdd xanaa da ngaa defe ne yàlla moom aw yoonam ñu ngi jëm ci ni ñuy jullee ak ni ñuy woore waaye nooy wute lu loo lekk boo ko amee noo koy lekke mu ngoog boo ko lekkee ba suur looy defi nooy wute alal boo amee alal noo koy téye noo koy gérer nooy takk jabar boo takkee jabar lan nga ko war a ameel moom it lan la la war a ameel loolu lépp lu ci nekk ay yoon la yooy jaar yoon yaa ngi koy jaarale jéemoo seet ba xam ndax yàlla rëdd na ci ay yoon te ana yàlla la ci rëdd ay yoon ne nang ko ci jaarale ba ngeen amee ay doom doom yooya fa nga leen di yare la nga leen di jàngal yàlla rëdd ci ay yoon ne na nga ca jaar te yooyu yëpp day dellu ci sa bopp en tant que individu wala en tant que famille ni ngeen de doxale biir dëkk bi bu xuloo amee te yàlla bu xuloo am waaye na ngeen di daje ci penc ma atte ko kuy atte nas jantara woo mooy atte wala Maodo wala Ahmed Abdou lu muy atte nu muy atte yooyu yëpp yàlla rëdd ci ay yoon bu ngeen jàllee ba ca gendarmerie ba ak lu gendarmerie mën a jàng yoon ya nga xam ne moom la yàlla wax ne na ci atte te na ci gérer ay yoon la yoo xam ne dañ yàlla da koo rëdd yow xooloo ko seetoo ko da ngay jàpp ne siraatul mustaqim du wax ci loolu siraatul mustaqim ci li muy wax mooy ci julli ak koor te julli ak koor googu sax yow fonkoo ko doo ko def la nga tey dafa kës néew jéemu laa xam ba xam ndax yoon wi ko yàlla wutal rëdd ko wax ko ci alquran faram fànce ko ci wax yeneen yàtteen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i jëfam yow jéemoo ko dëppale loolan ba xam ndax bokk nañu jéemoo ko jaarale foofa yow kay sëñ bi yaag montar bu dul joxe heure yéen yam yem yow poubelle ba moo di euh, sa place sën ba moo di sa place bu fekkee da dëkk ci taax mu rafet ci adduna itam walla xiraa ab sene nga fa buy bërëx yal na yàlla musal ci sën bi bërëx ak bu bërëxul aha suñu borom yàlla bi mu nuy sàkk nee na dafa am lu tax mu sàkk nu te loola itam mooy nu jaamu ko mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun dara taxul ma sàkk nit ak jinne lu dul ngir bëgg ne nañ ma jaamu kon boog yàlla danoo sàkk ngir nu jaamu ko waaye jaamu googu néewul jaamoo leen ma seeni xel mbaa seeni xalaat mbaa seeni xam-xam ديت دنا نان ما جامو ني اك ني اك ني يالا وخال بوبم مو وخال بوبم اندي وخ جمم جي فات دي ده موي القران دي تيمري سار كنيم مو وخت يو بري بري بري كي نين كو ورا جامو اك نين ورا دخل ادني ba pare na li wax ji nak ci koy faram fanké moy moy moy sama ndaw lolé di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mbok jaamu gi du caa génnu dañuy jaamu leen ma rek nu ngeen ma jaamoo baax na waaye dafa am ay yoon yu mu rëdd leer la ko ci alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam ni ngay jaamoo yàlla mënoo koo xamee ci beneen source lu dul ci ñaari source yi la yàlla waxte mooy alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boog gannaaw leeral gi gépp léegi mën na noo wax ne asiraatal mustaqim mooy yoon wi jub sa yàlla ci ni ngay doxale moo xam li ngay doxal ci adduna la jëm am ci li li ñuy tudde diine la jëm asiraatul mustaqim di ngay ñaan ci julli ci fatiha ne yal na la ci yàlla teg yal na la ko yàlla xamal te yal na la yàlla may tawfiq nga jaar ci te na la ca saxal siraatal mustaqim jooji mooy yoon wa yàlla wut ne jaar leen ci bu ngeen dee wut lu ngeen di lekk bu ngeen ko amee ba di ko lekk lekk ni wa jaarale leen ko nii loolu mooy misaal ci di nit ki en tant que jaar leen fii bu ngeen dee wut soxna sooy dund yaag sa soxna ñii ngeen war a dunde ak seeni doom lii nga amee soxna si ak doom yi lii lañ la ameel fii ngeen war a jaar loolu di nit ki en tant que famille mu yàlla rëdd yoon yi wane ko ni ñuy doxale ci biir dëkk bi ak ci biir réew mi fenn fu ci nekk ci tribunal bi bu ñu xulowee ci wàllu politique bi politique sa yi jógee kenn man sa parti mi ngi ko tuddee APR kenn man sa bos PS la tudd kenn PDS xanaa kenn ko ne am nga ci politique lu ñuy wax programme programme boobee mën naa doon aw yoon wu jub mën naa doon yoon wu dëng kenn fu ci nekk sa borom yàlla moom rëdd na fa ay yoon ne yoon wii mooy yoon wu jub wi loolu mooy ci li ñuy tudde adduna ci li ñuy tudde diine moo di julli ak koor ak asaka ak aji makka ak yi ni deme yooyu itam suñu boroom yàlla ni nañ jullee nii nañu woore nii nañ julli ci waxtu wii nañ woor ci waxtu wi nañ dog ci waxtu wi yooyu yëpp fenn fu ci ne yàlla dafa rëdd aw yoon yoon woowee nag mooy as-siraat al-mustaqim aha ومنها يذكر جميع الحاجات والمقاصد البشرية التي تعود إلى ذات البشر في حياته الدنيوية يدخل جميعها في إطار العبادات. لو تم بوكو خولي بو باخ دا nga gis ne li ngay def yëngatu yi ngay yëngatu pour di dox jëm ci ay soxla yoo xam ne ci sa bopp lay dellu nit ki yëngatu yi ngay yëngatu pour am loo lekk nekk sa day wëlbatiku nekkaat jaamu yàlla nekk bi ngay lekk ni ngay lekk day wëlbatiku dugg ci ibaadaat yi doon jaamu yàlla ni ngay wute alal ci bi ngay jaay ab commerçant nga borom bitig nga te borom bitig yi foofu war nañ cee bàyyi xel borom bitig yi nañu xam ne boo demee ci risaala فك باب البيوع بارنا في القران فك فا اي اي يجيم تي نجاي نجن لول بو فك بروم بيتيجي خمو نيكو وون نانكو خم تاي امنا في القران اي اي يجيم تي نجاي نجن بارنا في بخاري اك مسلم في وخ يونت بي نك عليه الصلاه والسلام ام بولم تيري سنه فك تي اي بونت يجيم تي نجاي نجن اك لبل اك فيو نان غي ووتو علال da ngay jaay da ngay sàmm da ngay bay lenn lu ci nekk yàlla wut na ca ay yoon bu ko defee kon xatta yére bi ngay sol moo xam góor nga moo xam jigéen nooy wute ba am yére bi boo ko amee noo koy sole ak nu mu war a mel loolu lépp day wëlbatikuwaat dugg ci ibaadaat yi doon jaamu yàlla doon telee ci suñu vie personnelle la jëm waaye yàlla da ko rëddal ay yoon ne jaarale leen ko ci moo tax day wëlbatiku doon ay jaamu yàlla gannaaw bu mu doonee ay soxla personnel daal di dugg ci biir jaamu yàlla yi aha tayit mën nanoo seet ni seetlu ni yi ñuy tudde diine yi fuqaha yi tudde ibadat ni ki julli ni ki njàngum alquran ni ki zikr ni ki woor ak yi ni nel nga xam ne lool leen tudde diine loolu itam bu ko doomu aadama yéegee ak bu ko yëgut lépp daa bokk ci ay xaajaatam ay besoin la bokk besoin la boo xam ne doomu aadama bi bu ko ñàkkee day am lu manque ci moom intérieurement lu koy andil ak malheureux te du dañ mukk tànk demul jëfe ji ko yooyu nga xam ne ibaadaat la ko fuqahaa yu tudde te mooy yi nga xam ne bu ko yàlla tuddul woon sant nu ko duñu ko xam ni ki julli comme ni ma ko wax léegi ni ki njàngum alquran ni ki koor yooyu yëpp day delluwaat doon ay xaajaat saxsiya kon boog sunu soxla yi nga xam ne sunu ay besoin personnel la ñi ki dox pour wut loo lekk ak noo koy lekk ak wut loo naan ak noo koy naane doon bu mu doon ay besoin personnel day wul wëlbatiku doonaat ay ibaadaat doon ay jaamu yàlla noonu la julli ak koor ak njàngum alquran nekk ay jaamu yàlla ba nawet ko waat nekk ay besoin personnel ndaxte nit ki dafa soxla julli ba mu yëgee ak ba mu yëgul nit ki dafa soxla njàngum alquran ba mu yëgee ak ba mu yëgul te itam buy jàng alquran xam li laaya yi wax nit ki da koo soxla mën na ko bañ a nag waaye da koo soxla te bu manqué ci moom dana am lu manqué ci niteem loolu moo tax léegi nit bareetul waaye li ma bëgg a wax mooy jaa ibaadaat yi day wëlbati ku nekk ay besoin personnel besoin personnel yi wala familial yi wala sociaux yi walbati ko nekkat ay ibadat yu jaxasoo lépp am ay yoon yu ko yàlla rëddal ne jaarale leen ko ci soo ko ca jaarale kon yaa ngi ci siraat almustaqim aha صراط المستقيم في أي شأن من هذه الشؤون وما بينه الله تبارك وتعالى في هذين المصدر. ندير يا يبنك سيدي اجيس اي بزر بيرسونال نيكي لك معناك فور دكت نوي بوليتيك نوي اتوك نوي خلوك نوي تك جبرك نوي يري دوم اك نوي وتي علل نوي كومسيك نوي سام اك نوي يري علل جيك نو كاي لك ولا نوي جامو يالا نيكي جولي ولا وور ولا نجانو بالقران نو كاي دفا لن لوشي نك يالا دكو ليرال بوبم نجاري لكو فيه yow julit bi nag boo xamee foofa te jaarale ko fa xamal na yaa ngi ci al mustaqim kon boog al mustaqim gën naa yaatu li nu yaakaar danoo yaakaar ne sirat al mustaqim mooy bu dem jàkka ja jotee nga dem jàkka ja aha kay aha kay loolu ci ci jiitu la bokk ku dul dem jàkka ja kay ñëpp ko ci al mustaqim ku dul julli julli mbooloo ñëpp ko ci al mustaqim waaye boo dee julli julli mbooloo tey tooñ say soxna tey tooñ say dëkkandoo فدخل سيدي كيك سيدو نو خنا داو تجني القران اكلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كن امن فو جاب جارو فو صراط المستقيم اها ويستبين في ذلك ما تعلق منها بما يعرف فقهيا بالعبادات كالطهارة والصلاة وكالصوم أم الزكاة واو أو تعلق بما يعرف بالعقائد كمعتقدات الإنسان وما bu ko defee kon nu daal di gis ne e, mboolem li nit def te mu am yoon te mun te ñàkk am yoon te yoon wa benn mu dëng walla mu jub bu dee lu aju ci ay besoin personnel ma joxe ci misaal yi ma joxe léegi ñi ki yëngutu pour am loo lekk ak bi nga ko amee lekk ko walla naan ak bi nga ko amee ni koy naane walla solu ak foo dëkk ak nooy tukkee wala takk jabar ak am ay doom ak noo koy yore wala yorum réew ak noo koy doxale wala li jëm ci li ñuy tuddee ibaadaat ni ki julli ni ki koor ni ki asaka yooyu yëpp yàlla rëdd ay yoon yoon yooyu il faut nu xam ko te itam li ci jëm yoon yooyu am na ci yoo xam ne mi ngi jëm ci ay pas-pas ñu ci war a gëm suñuy pas-pas dañ ko war a peese ngir mu jaar ci siraatal mustaqim dañ ko war a xool ci alquran ak sunna alquran ak sunna dafa am nu mu bëgg ay pas-pas mel ni yow mii nit ki say pas-pas ak say ngëm-ngëm seeg mënoo koo peese ci balance alquran ak sunna ba xam dëppoo naam dëppoowul koo ci loo xam ndax mën ngaa nekk di gëm yu la alquran weddi loo wala ngay weddi yu la alquran gëm loo wala waxe sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bokk pas-pas yi naka noona jikko yi jikko yi jikko yi am na ci ay jikko yoo xam ne yàlla da koo rafetlu santaane ko ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga fexe ba say jikko jaare noona kon jikko yaa ci siraatal mustaqim waaye boo xamul jikko yooya jéemoo ca jaarale say jikko say jikko jéemoo xam yi ci rafet ci ni alquran ak sunna rëdde wala yi ci ñaaw ci ni mu rëdde kon kay yow nekkoo di dund siraatal mustaqim ci wàllu jikko kon boog jaamu yàlla yi da cee am yu aju ci ay pas-pas yi ngay gëm ak noo koy gëme da cee am yu aju ci ay jikko am ci aju ci ay wax ay wax am na yoo war a wax ak yoo wërta wax am ci aju ci ay jëf yoo war a jëf ak yoo wërta jëf yooyu yëpp diina ji ëmb na ko aha naka noonu la ëmbe suñuy relation diggante nit ak baayam wala diggante nit ak doomam diggante góor ak jabaram diggante jabar jabar ak jëkkëram fenn fu ci nekk yàlla dafa rëdd aw yoon yoon waa ngi nii yoon wu jub la jube jaarale leen ko ni yow mu fexe ba xam loola nag te jaar ca mooy maanaam foofa yaa nga cee jaar ci mustaqim moo xam sax li jëm ci wàllu xuloo mu ngoog lu jëm ci wàllu xuloo bëkk démb damaa am gan bu ñëw ci guddi ne ma sama doom laay seet ndekete xale bi yaay ma ko fi indi te nee na baayam bu ñëwee bu ko ko jox baay bi ñëw na man nag sama doom laay jël si man tam ma wax secrétaire bi ne ko xale bu mel nii day war ci woon a dugg te yëgaloo ma ko waaye ak loo mën a xew jàmm xuloo ba ñuy xuloo moom jëkk baay ba ak doom jar am na lu borom yàlla rëdd ni nii lañu war a atte woo kii moo am dëgg ci lii kii moo ñàkk dëgg ci lii ndax léegi léeg lii foofa it dañu faa war a jaar ci siraatal mustaqim mu ngoog moo xam kon boog lu jëm ci wàllu suñuy muraafaat suñuy kalaamante ci tribunaux yi wala sax suñu cooy politique yu bari yii ñu soow ñii da wax lii baax na ñii da wax lii bon na ñii da wax bii parti baax ñii da wax bii parti bon lenn lu ci nekk am na ay aaya ak ahadis yu ci aju yuy leeral nu ko war a doxale تجار لك فوفة ما ما نام جاك تجار تصرف المستقل آه نكمل نا يبو كتب يوي تمون ما لم يب واي لب لو خمنا أجل تيدن بغيرك لتي جنا باري دنا فك سنبرم يالله أم دينا فأويون يوان وين ساي مو إجمال دادي باي دتاي أكبرام خم خمي غير مو من إيفولي عندك جمونو ين ساي تمو دتاي كوبو باخ nga dafa itel ci kene waru ca djum te yomb naa juume waaye lépp laa ci dundub doomu aadama rek yàlla rëdd na fa ay yoon ne jaar leen ca mooy siraatal mustaqim aha kon boog siraatal mustaqim mu noonu yaatu ba de yàlla rabbi noo ngi lay ñaan yal na nu dimbali ba won nu siraatal mustaqim nu xam ko te itam noo ngi lay ñaan yàlla na nga nu tawfiqal ba nu jaar ci siraatal mustaqim te itam noo yal nag nu may buñ ca jaaree nu jaar ca jaar gu sax dak bañ a def tey ëllëg te nu dox ëllëg nu taxaw te noo ngi lay ñaan bu yowmal qiyaamate boo soppee suñuy jëf ak suñuy jaar diñ doon jaar ci adduna ci siraatal mustaqim yi may leeral nga soppi ko muy siraat ab pont nga gàll ko ci kaw naari jahannam ba napp wutul ko ay lonku yaa rabbi noo ngi lay ñaan yal nag nu boole ca ñooy jaar ca yoon wa jaar bu gaaw dem aljanna te ay lonk ba leen a lonk di leen naa daanee ci biir naari jahannam aha noo ngi lay ñaan yow suñu borom yàlla mbir yi nga xam ne noo ngi ciy sikki sàkk ndax suñu xel yu gàtt yi mënuñu cee xam ana lu ciy dëgg yow mi xam luy dëgg mbir mu ñëw ñu di ci sikki sàkk yàlla na nga ci war li siraatal mustaqim sa tawfiqal na ba nu jaar ca mbir yi nga xam ne dañ cee wuute ñii naa nii la ñii laa du nii ñii naa lii dëgg ñii naa lii du dëgg lenn lu ci nekk yàlla nag nu woon ñun ñëpp siraatal mustaqim ba nu xam ne lii mooy dëgg ci yu ñuy werante te nga may ñu tawfiq nu jaar te siraatal mustaqim moo xam ci wàllu diine la aju moo xam ci wàllu adduna aha yow sunu borom yàlla yow mi nga xam ne yaa moom malaaka mu rëy rëy moom mi ñuy wax jibril wala jabrail yow mi nga xam ne yaa ma malaaka mu rëy rëy rëy moom mi ñuy wax israfil ak mikail yow ni moom malaaka yu rëy yooyu yow mi nga xam ne yow dong yaa sàkk asamaan yi juróom ñaar ak suuf yaa sàkk arasha kursi yi yaa sàkk mindaa ni yëpp yow mi nga xam ne yow dong yaa xam xaybu yaa xam démb ak tey ak ëllëg yaa xam dëgg xami caaxaan